ay ca ayca asalaamaaleykum asalaamaaleykum rahmatullah mbokk internetu Général TV ñoo leen di bëggee di leen ziar di leen jox wàcc waay di leen jox wàcc waay bu baax a baax a baax a di bëggee mbokk internet yëpp mbokk internet Général TV képp kuy bëggee Général TV ñoo ngi lay bëggee di la nuyu di la ziar di la jox wàcc waay naan leen dalee nag jàmm seen émission débriefing muy am chaque mardi bi mu doon seen troisième numéro de la saison saison 2022 2023 ngeen ci ànd ak seen présentateur Pape le Général ànd ceeg équipe bu yëpp. di bëgg ñëpp ku ci melni ni Fay borom marché Gueule Tapée borom Ndiosmone borom xonjoñ mang koy bëggee diko xiar di bëggee juuf Saltigué momadou juuf depuis Mbour momadou sar le frère depuis sat Wali di bëggee wa 100 pour Général TV muy groupe WhatsApp bi nga xam gaay ñoko yi créé fan yi ko 100 pour Général TV di bëggee membre initiateur yi nga xam ñom ñoko ñoo créé ku ci melni Joseph Kamusen, mang koy bëggee diko xiar momadou sar le frère ak euh, mboolem membre bu ne ci bir ñu leen di bëggee di leen xiar di leen jox wàccaay nan la acca affaire yi fofu la yéen ñu may doole yéen suñu doole ba tax dañuy dugg a tay tey seen débriefing mun tombé ak euh, mardi 3 troisième seen troisième numéro de la saison 2022 2023. tay nak dugg du lool parce que journée yi bari wuñ ci woon weekend bi ñu génn il paraît que ben journée bu mag lañ amone muy kérok dimanche 23 octobre fofu ci terrain gal gi. ben journée bu mag lañ amone Jax production moo fa woote waatoon tegaloon gars yi mise am solo mise bu toll ci 1 500 000 francs euh, le samedi tamit euh, a 22 samedi 22 y na mbapat fu ci melni amon na mbapat fu ci melni y amon na mbapat dimanche 23 batay mm, arène nationale à na combat lutte avec frappe ñaa bu ndaw y fa ak euh, armée bu ngewel fu ci tamit il na combat fofu Siteu la y ak 2 bu Kaolack fu ci melni Thiès y na combat fofu il ci a Pape cham Mbour ak Jël Dem bu Thiès ah. waaw loolu Mbour la y la muy samedi muy samedi ak dimanche 23 octobre 2022 ba tax na dañuy dugg ak ci débriefing bi ñëk leen présenter euh jour samedi bi mu tombé samedi 22 octobre 2022 dañuy ñëk gën ma gaay fofu ci Yor amon na mbapat or amon na mbapat samedi 22 octobre 2022 mbapat bi ni la démé ki ñu wax mercedes bu sum mercedes sum lok ñu gën ko xam ci tierno job mom mo jël lamb ji moko jël ci babu babu fay camp mandangan rakk ci ngor ndangan ak njangar fay lolu mbapat la won mo ngi amoon kérok samedi 22 octobre 2022 foofu si Diofior bu ñu jógee Diofior dañuy def tout droit Joal Fadiouth Joal di bëggee waa Joalu yëpp boobu ñu kenn ah. euh, foofu amoon na ba tamit samedi 22 octobre 2022 ki nga xam ne mooy njool bu sana moo ko jël ci saaku bu si siwoo loolu mbapat la woon moo ngi woon foofu si Joalo bu ñu jógee ci ñaari mbapat yi nga xam ne ñoo amoon samedi ak dimanche yi ñu jot a jot à notre niveau dañuy dem ak yéen ci dimanche 23 octobre 2022 foofu ci terrain gaal gi.

ki ci mel ni ñoom Mboudaay Ngunjaan ñoom original Mbel Sop Kor Mari Mbel Sop ba tey daal ñoom Boy Sadio ñoom ñoo fa woon ñoom Famara Bass wàcc si woon nañ xam nga ba tey daal mën nañ ne benn même benn gang rek bi nga xam ne ñoo commencé saison ba tey ñoom la ñuy gis ba tey parce que ñu bëri wàcc wàcc seeguñ comme ni ñu ko waxee woon weekend passé peut-être nag li leen tee waa ñoom seen raison personnelle la naa leen affaire yi daal sàjj na mbër moom teel a compétition teel a compétir dafa baax si mbër boo teelee compétir waaw di nga mën a ubbeeku kenn xamul waaw c'est des raisons personnelles dañ leen koy nangul tamit di leen ñaanal acca ñu ubbeek jàmm rek ubbeeku si bismillahi rahmaani rahiim jeexal ko ci amdu alhamdulilahi rabbil alamin waaw loolu moo amoon keroog dimanche le 23 octobre 2022 foofu ci terrain gaal gi animation toujours le duo de soc Mbaye ak Loum Momo Ngom Jackson moo woon foofu tegoon mise bu am solo 1 million 500 mille francs ki nga xam ne mooy Modou Faye ordinateur vainqueur sur CFA bu gis nañ rajaxe

ordinateur macha allah quatre sorties trois finales gagné benn la perte moom ordinateur moo jël Ibamar moo ubbi arène bi moo ubbi saison bi moo jël Ibamar Diop le premier ñëw finalu terrain gaal gi la deux perte ko ñëw Ndangaan Samb le 16 jël ko ñëwaat terrain gaal gi le 23 octobre jëlaat ko kon ordinateur dafa def quatre sorties saison bi jël trois perte benn bi ah macha allah machine ne ñaaxara <laughs> ordinateur buuru si rek Saalum wala mané buru Senegal, Sénégal wala buru làmb ji ah macha allah buru amateur yi amateur yi vraiment dañ koy apprécier parce que bu beuré di nga kontaan hmm. bu fair play jotee dina fair play moom moo fay ordinateur kenn du mom acca gaay lool mo amone digënté samedi dimanche lutte simple batay dañuy dugg ak yeen ci combat ay combat lutte avec frappe ñew ak yeen dimanche 23 octobre foofu ci arène nationale arène nationale amone na journée ah, armée bu ngewel bi moo fa don lalek ki nga xam moy ñaabu ndaw ñaa ndaw mom la yalla may ndam ñaa ndaw mo daan arbe bu ngeewul gi fofu ci arène nationale loolu mo ngi xawon dimanche 23 octobre 2022 dañuy dem ak yéen Kaolack sama dekk amon lutte avec frappe tamit hmm, organisé par Yamusu production ndiafu bu Kaolack ak Sita bu sa ndiafu bu Kaolack écrit ñu ngi nanka mom mo daan Sita bu écrit Aljuma djouf loolu mo ngi amoon dimanche 23 fofu ci Kaolack ba tey ñëw ak yeen ci combat lutte avec frappe Mbour stade municipal de Mbour pacham pacham bu Mbour borom Simal Pathiam borom petit bi mo mon combat fof ak jël dem bu ties ki amna moy Pathiam bu Mbour mom moko daan jël bu reuy di bëgg wa Mbour yépp di xiar ñëpp ha lool mo xewon digënté samedi 22 ak dimanche 23 ñu bol leen ay journée lutte avec frappe ak lutte simple parce que débriefing lañ wax da war riatu parfois aha aja ba tay rek sama gaay bu ñu joggé ci résultat lamb yi dañuy ñëw ak yeen ci annonce annonce yi wara am ci weekend bi ah, weekend 28 29 30 japp 31 ak bi ñëwaat Euh, du 4 au 5 6 ba 7 euh, ba jàpp le 12 novembre incha allahu rabbi di ñaan yàlla ma ñu fekkee ak tal dañuy njëkk yéen ci Joal jàpp production comme niñ leen ko waxee woon la fois passée moo indil gars yi mise bu am solo 14 ba ak 300 000 francs foofu ci Joal stade François boobu lay xewee ñetti catégorie la teg nag ñetti catégorie la ko def mais 14 nag la 14 ba ak 300 euh, 000 francs moom jàpp production loolu ma ngi war a xewee le 28 ak le 29 animation Mbayang Loum Diab Diagna ñooñu waa Diab production ñooñu ko indil te dellusiwaat Mbapat Mbelo Ngut Saasem Mbelo Ngut Saasem ñu leen tegal Mbapat 28 29 octobre encore 28 29 octobre poids léger nag ak 30 000 francs poids lourd bi nag ak 50 000 francs di bëggee waa Ndiosmone waa Mbelo waa Mbelo Ngut di bëggee Ndiosmone waa Ndiosmone ñoom Ousseynou Mbodj ñoom Ndiaga Faye di bëggee képp ku yeewoo zone boobu rek waa ba Diab arrondissement Fimela ñu ngi leen bëggee di char aca ba tey production Fathia production tamit organiser nañ journée bu am solo fofu ci Mbamloog le 31 octobre 31 octobre Fathia production mo woote fofu animation nday Fatou et la seen tegal gay mise bu am solo 5 nak juromi nak ak 25000 francs lolou mo ngi wara xewé xewee lundi lay tombé le 31 octobre 2022 foofu ca Mbamloog wa Fathia production ñoko organiser organisé animation Ella Sène Ndeye Fatou Adama Jali bu ñu jógee foofu dañuy ñëw ak yeen ci le 5 du 5 au du 5 au 7 novembre 2022 fim la ASC Angle Abou seen troisième édition ñoo leen indil la mise ñoom it mise bu am solo ñaar fukki nag ak cent mille francs vingt bœuf ak cent mille francs raw gàddu ñu tegal leen ñett nag poids léger ñu tegal leen juróomi nag poids lourd ñu teg fukki nag ak ñaar douze nag ànd koog xaalis tamit animation duukaan mu ibu seen ak Ndeye Fatou Adama Jalingom loolu du 5 au 7 novembre lay xewee foofu ca Fimela Angle Abou ba tey le 5 novembre 2022 ca Kaolack ba tey sama dëkk.

mise bi ñett saaku ceeb ak 10000 francs loolu mbapat la xamna pour mbaru mbapat yi wa ngeen dem tante sen sens fofu nonu dak sen wërsek ba tay ñew yeen ci le 6 novembre ak sunu patron man sunu patron la koy tuddi moy dun ñaan borom jilas production moy sunu patron wa man bok moy sama patron parce que xamna naa ne promoteur yëpp buñ amone compréhension bi mu am si ñun TV TV kon suñu liggéey bi dina gëna a ba tax na moom ma woté arène adressé ngor le 6 novembre tégal gaay mise am solo 1 million 1 million de francs CFA animation Mbayang Loum Kafal fay waaw décoration Diagne Ndong Diagne Djilas moom lañ fay décorer foofu euh, si arène Adrien Senghor le 6 novembre mu tegal leen mise bu toll ci 1 million de francs CFA dut ñaan ba tey Ndorong Séeréer ah, euh, du 4 au 6 novembre Ndorong Séeréer 4 au 6 novembre waaw euh, ñett fan la le 4 bi ñaari saaku ceeb lañ leen tegal le cinq nag ak 40 000 le 6 ñaari nag ak 10 000 francs Lolo fële lay xewé Ndorong Séeréer ah, du 4 au 6 novembre batay chombi chombi, ah, hein, chombi. ganjay le 10 le 11 le 12 novembre 2022 fofu ci Thiomby Rogodu ñu tegal 150 000 francs poids léger 250 000 francs poids lourd ñu tegal 400 000 francs animation fayam Mbodj Momo Ngom loolu Thiomby lay xewé di bëggee Ngor ak wa Thiomby yépp ah acca production ñu ak yéen Ndiaphate Escale mise 1 million de francs CFA hmm, fofu ci Ndiaphate Escale Yerwago Production Animation Faye Mbodj Mor Ngom loolu Ndiaffate lay le 12 novembre lay xew foofu ci Ndiaffate Escale ak waa hmm, Yerwago Production bataille le 30 octobre le 30 octobre 2022 30 octobre 2022 foofu ci terrain gaal encore Jax ñëw ak quatrième journée am su ma juumul quatrième journée mise yokku na 1 500 la doon teg mais bii def na 2 millions de francs CFA. loolu la octobre lay xew foofu ci terrain gaal gi animation comme d'habitude Mbaye ak Loum Momo Ngom le 30 octobre 2022 foofu ci terrain gaal gi mise 2 millions open lay doon rek comme d'habitude ah ba tey ñëw waa ci wa mais de solidarité muy gala du yu war a ay combat yu war a am fële ci Palmarin eh, di bëgg suñu frère Mansour Seck ak ñi ko àndal yëpp ak waa mais association mais de la solidarité ñëpp ñoo ngi leen di bëgg di leen siyaar ñoo ngi amalee combat yu am solo le novembre lay xew foofu ci Palmarin combat yi nag am na solo ku ci mel ni maxalaay am na ci combat ñoom kees mu dangaan am nañ ci combat ñoom lagandong am nañ ci combat ñoom Koudia ah, ñoom martis waaw suñu limee dañuy jum bëri nañ mais loolu le novembre lay doon foofu ci Palmarin euh, di ci bëgg waa Palmarin bu baax di ci bëgg suñu frère Mansour Seck ak waa association Mains de la Solidarité ak ñi ci àndal yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp ah, novembre lay doon waaw ñoom 15 bu ndangaan dinañ fa nekk xam nga ñoom mm, martis ñoom mahalay bi ñoom guja jilor mm, ñoom amet jox dugul ma ñoom ñep am nañ fa combat ah. liste bi bari na c'est que dama jor lepp rek mais combat yi bari nañ te ay combat yu neex lañ leen indil waaw di béggee suñu frère Mansour sek ak wa Palmarin yep ñoom Mari Seck mm, ñoom Mamadou gaay ah, pa bay wuñ kenn le 30 octobre fofu ci arène nationale grand Mbagnick Faye Kalmundoor mom combat wara break chat euh, caat le 30 octobre 2022 fofu ci arène nationale aca sama gars yi loolu lañ leen indiloon ci débriefing bi tey tombeek moom seen mardi mi nekkoon seen troisième numéro de la saison saison 2022 2023 ñu fas yéene ko ànd ak yéen comme d'habitude lamb yi bu jeexee euh, weekend bi jeudi vendredi samedi dimanche ba lundi ñu noppalu mardi ñu ñëw def ak yéen débriefing genre résumé lay doon wax leen résultat yi fi am annonce yi a ñëw ak lamb yi fi am tamit nañ koy jàngatee di ñaan lamb yi xam nga ñu déroulé ni di ko ñaan mu jeexee ko noonu parce que euh, gis nañ ji fi amago yëpp macha allah car macha allah dara amagu ci gars yi ngi koy bëre ñoo koy wéy a yaa ngi koy seetaan si jàmm salaam mu ngi jeex si jàmm ak salaam di ñaanal promoteur yi nga xam ne ñoom ñoo koy tëgg tamit ñu gis seen bopp réussite totale aca di béggee ñëpp di siyaar ñëpp di béggee équipe bi Général TV Ndiaga Faye ne ah, cent ma leen fàtte 100 pour cent Général TV di wax ne képp ku ci bëgg bokk rek dinaa affiché numéro bi ci bas écran bi képp ku bëgg a bokk ci groupe boobu muy 100 pour cent Général TV bu ma waaw parce que gars yi ñoo créé mu doon initiative bu rafet waaw amagul une semaine mais mën naa ne plus de 200 membres ñoo ngi ci biir li ma leen ko waxee woon comme d'habitude la fois passée lamb rek lañ fay waxtaanee waxtaan nañ fa leneen lu tudd lamb parce que moom lañ xam moom lañ moom lañuy ñuy dund te xam nga fas yéene ko ànd ak gars yi foofu yëpp di ko yaatal foofu comme niñ koy defee fii rek dañ fa def waxtaan yu am solo waaw di si oo ñëpp di bëggee ñëpp ñu ñaanal ñëpp jàmm di leen jox rendez-vous beneen mardi ak seen beneen numéro débriefing ànd ak waa équipe bu Général TV ak seen présentateur Pape Général di leen ñaanal jàmm ak salaam asalaamaaleykum wa rahmatullah